parce que ñun ñooy ñun ñun ñun ñun ñun ñooy tàbbal ci xol yi neex-neex ñoo leen di jox neex-neex bi ngeen soxloo li ngeen bëgg ñoo leen koy jox moo tax saa su ne dañuy dox ci li ngeen bëgg ñun bàyyiwuñ dara bàyyiwuñ lenn fu ñu waay soxloo ak ci loo ñu soxloo ñu fekk si la wala nga fekk suñu ñu dalay yow waxtaan ak yow ci domaine bi nga nekk ak ci domaine bi nga yëngu tey nag ñoo ngi fii Castor dañ fi seet si benn tailleur bu mag ñu koy wax Thiaw caw macha allah xale bu pare xale bu mun la mi def xale boo xamante ne lépp lay ñaw loo ko jox mu ñaw mooy soxor si so lu mu ñawul baaxul dama bëgg sama caméraman bi nga topp ma ndànk ñu dugg ci biir ñu xoolaan caw lan la nekkee ci biir ak lu caw di def ci biir waaw mais koom-koom. mais eh, mais Thiaw a ngi nii mais Thiaw loo maa ngi nii mon frère. waaw mais tey. mais bisimilah tey ngi nii. fii mooy Daara ji fii mooy Daara ji yaay biir design. ah bon bien sûr. mais kon kon tey du yomb. non tey yow laa seet. salaamaaleykum gars yi tey du yomb ak sama frère la. Thiaw a ngi noonu. waaw dafa dañu bëgg après yow. waaw bisimilah. ayca nga toog fu la neex est ce que doo toog nii nu la neex tooga. na. jeex na kon bisimilah. <laughs> grand bi nañ nañ la. maam nga jàmm. ça va tey naka tey. ça va sant ah, nga ñëwoon ñawlu si. waaw dama ñëwoon seet si sama. ah bon ci client yi nga bokk. waaw ci client yi laa bokk. da ngay waajal julli bi. maa ngi waajal tabaski. <laughs> yow loolu laal jasneer wala ci mbasin yi. <laughs> waaw jasneer. yaa ci jasneer. waaw waaw mais mais mais mais loola gën a neex ci caw mi ba nga tàmm ko pour mu ñawal. Euh, bon tailleur bu baax la euh, ay modèles yu rafet lay ñëw mhm. en plus euh, cher trop. Mhm. nekk ku sérieux aussi. Mhm. di respecter engagement oui effectivement. Mhm. oui. bokkul ci tëër yi dawloo client yi. non du tout sincèrement. non non non. bokkul tamit ci ñiy randal ay tisi. non sincèrement xamuñu ko si moom. moom sérieux na daal. waaw ku sérieux la. ah bon effectivement. ah kon baax na a ko déggandoo. Hmm. lu amul seede baaxul lu amul seede wóorul. Euh, tey nag ñoo ngi fii ci biir plage bi. Euh, ñu seet si fi mu nekk xale boo xamante ni car macha allah uh, mun na la muy def xam na la muy def uh-huh, mun na la muy def xam na la muy def moo waral tey suñu déplacement suñu dérangement mais Thiaw ñu ngi lay nuyu. waaw mais maa ngi leen di fay les mon ami midi. Dakar midi TV Dakar midi TV maa ngi leen di di leen charré yéen ñëpp. Mm-hmm. Mm-hmm. yow. Mm-hmm. déplacement bi nga def. ñu ngi am contentement bu wér di ñaan luñ fi wax rek. mu nekk njëriñ mm-hmm. waaw alhamdulilah luñ fi wax mu nekk njëriñ euh, mu nekk nag xale bu baax macha allah xale bu mun la muy def xale boo xamante ne nii boolewul dara ki wax parce que tamit buñ ne diw baax na dañu naan ndax mbokk yaa ko waxam déet te ay mbokkam wax nañ ko ay client am wax nañ ko xanaa dañuy xuus ñàpp rek jëm dugg ci ci ci ci ci wàllu liggéey bi caw ñu bëgg laaj fan nga dooree waaw boo xanaa dañuy résumer rek. mu mhm. gaaw vite fait. Mhm. Euh, man maa ngi tàmbalee yaakaar naa yow dara ump la. Mhm. tu es un frère. yow ba nga si yàggee jàpp yàgg na quoi. lu bëri sa kanam la. wax naa ñu leeral ñuy seetaan rek. Euh, que ni man maa ngi commencé marché Castor. Castor waaw tàmbalee jàng ñëw. waaw yomb loon nag quoi. loolu ban année la. 2009. Euh, ah 2009 nga commencé ñëw. 2009 waaw 2009 ah, laa tàmbali. kon caw mi ñuy dégg caw man pour man année année année année 1900 yi la yow caw ci 2009 bi nga commencé ñëw. waaw mais bañ ko jàppee nag dëgg-dëgg jàpp di ñëw. Mhm. di nekk si ñëw bi concentré wu. 2009 mhm. la quoi. 2009 la. 2009 mais boobu amagoo sa yëfu bopp. boobu amaguñ suñu yëfu bopp boobu lañ commencé jàng ñëw. di mbapat di mbapat waaw di taxalee. ba yàlla dogal waaw ba yàlla dogal waaw instant yii gars yi jàpp ci bu baax. Mhm. waaw bu ñu résumé daal. 2009 2017 mooy jàng métier bi. mooy diggante jàng métier bi ci 2009 2017 2009 2017 waaw. après da nga jaar fi gars yi di jaar jaar nga ci embauchement. waaw jaar ci embauchement mais man sama jaar embauchement ba te ak jàng ñëw la yemal laa yemale woon quoi. Mhm. c'est parce que damay benn atelier su ma gisee foofu seen liggéey gën a avancé sama liggéey. Mhm. dama fay dem rek lu ma fay baax na ma ma perfectionné wu loolu moom loolu laa tuddee woon. embauchement quoi mais presque jàng métier la woon. Hmm, waaw xam-xam nga doon laa doon wut quoi. après lañ ma fay damay jël man soo ma su ma duggee ci ñu gën ma aay rek su ma duggee sama xol day sedd. xaalis dama koy fàtte. boobu am na foo tegoon sa bët. waaw loolu moom lu am la quoi. Hmm. lan moo indi caw Thiaw. Euh, Thiaw design bon maa ngi nuyu sama benn frère sax daf dañu ànd benn jour mu ne ma mais ni ngay ñëw gars yi di la tudd nii yow sa turu nan la tudd. mu ne ko aw ma de mu ne ko aw ma mu ne ko aw ma de mu ne ma mais mu ne ma caw ma defal caw design waaw comme man dama simple mu ne ko booy caw design. nga simple lal ko ma simple lal ko ne caw yàlla dogal na nag chaque événement maa koy yoral yëreem quoi. ah bon waaw ci tur boobu. ndax ndax ci tur bi ndax ci tur <laughs> man de xaw ma kañ nga ma yoral yëre man <laughs> loolu loolu loolu daw na yaram. créé leen eh, eh. waaw mais mais mais Serigne. Euh, dañoo gis ne fii liñ fi fekk maanaam dafa mel ni comme saaru njaxasu Baay Faal suñ nee njaxasu Baay Faal nag mooy couleur bu ne ngi ci mais atelier bi tamit dañ fi fekk ñaw góor ñawu jigéen ñaw xale ay costume maanaam yow lépp nga boole di ñaw daal yow bàyyi woo dara. waaw mooy mooy wax rek si si si si bi may dugg ci atelier yi. Mhm. atelier bu ne da nga dem fu ne ak li fay jàngee. loolu moo indi lii. loolu moo indi lii man amuma benn patron kenn mënul taxaw Sénégal ne maa jàngal sanu ñëw amul quoi waaw. Ah bon damay dem fii jël fale dem fee jël fii am na nit ñoo xam ne pour ñoom ñëw jigéen rek laay ñëw. am na ñoo xam ne pour ñoom ñëw góor rek laay ñëw. te yaa ngi ñëwaale ay costume. maa mais bien sûr na la caméra yi woon. waaw lépp ngi dox macha allah. <laughs> waaw man de wax dëgg yàlla tey moom tey jommi naa ci sama invité bi. parce que dama yaakaaroon ne comme terre yi may fekk ay marché asalem ak marché kasoor yooyu la mais fekk nekkatee niveau yi du ñu benn waaw tey moom yaakaar naa ne bu dee VIP la rek VIP bi tey moom laa seesi tey mu mel ni que sëriñ euh, ñu bëgg a waxtaan tuuti ci domaine bi terre yi ne parce que ndax yow ci domaine boobu nga bokk wala bokkoo ci domaine boobu parce que am na client yuy jàmbat ne client yi euh, terre yi balaa ñuy jeexal sa xor rek événement jot ñii dañuy jël sa xaalis duñ la ñawal ñii dañuy jël sa ñaw duñ la ñawal ñii dañuy jël sa ñaw tardel la xam nga maanaam maanaam xol yu jeex yi am ci événement yi ndax yow da nga bokk ci teer yooyu wala déet ndax yow yaa ngi koy teg ci yoon. damay wax gars yi def loolu moom. Hmm. Euh, ñu jëm ko bàyyi quoi c'est parce que doxul. da ngay tardel sa bopp tardel ki nga yoral ñawam amul benn njëriñ xam lan moo gën a yomb grand man boog ni may doxalee. par exemple benn duuru day andi yéreem de ren maa ko ñëwal de mais déwén dama koy teel leer ni il faut nga teel a ñëw pour mu mën la ñëwal su ko defee déjà kori tabaski bi day des un mois moom day ñëw andi yéreem loolu soo leen ko tàmmalee say client xoolal doo tardel kenn grand te da ngay da liggéey di am xaalis xoolal wóor na yàlla doo tardel kenn loolu man maa ko wax mhm. mais tardel nit ki loolu doxul billaay walaay doo am xaalis doo am xaalis doo nit ñi mais mafia tamit mu ngi daw ci biir téer yi de dégg naa am na ñoo xam ne dañuy jël ci si jàmbur di ko jaay quoi nga ñëw ñu naan la dafa leer wala dama ko jawaale affaire yooyu di la dawloo ba ba noonu ngay mujjee ñàkk. mais mais loolu loolu xam nga xam nga foo dem rek am na ñoo xam ne dañuy mel nii ñeneen ñi mel nii <laughs> xam nga loolu loolu mënul ñàkk. mais yow bokkoo ci ñu koy def. non man moom man gars yi xam nañ ma man moom <laughs> man man baax laa man soo ma waxee lii man amul loo may wax te du ma la tontu c'est parce que xam nga. damay bëgg muy nice quoi man damay bëgg soo ñëwee ba boo boo déplacé woo man sooy ñibi ma ñëwal lu rafet nga jox ma sama xaalis si xol bu sedd guy maa ngi ko comprendre nga. Mhm. man loolu laa gëm quoi man noonu laay doxalee en plus ñi ma xam ñi nit ñi may seetaan quoi. Mhm. waaw amul kenn ku ma mës yorol yoral benn yére. wax dëgg fa ah yàlla yoralu ma kenn dara. yorol kenn ma kenn dara. ku ma yoroon la ñëw ma <laughs> ma jox ko man yoraloo ma kenn benn ñëw <laughs> yoraloo ma kenn dara. <laughs> yoralul non man du ma tardel kenn du ma mësuma tardel nit billaay wallaay. lépp da koy teg ci yoon dama koy teg ci yoon su ma nee fees naa fees naa quoi c'est parce que xaalis la quoi xaalis rek lañ lay jox. Mm-hmm. waaw mm-hmm. kese lañ lay jox. moo tax gis nga lépp lu waay di def rek na doon lu dëggu ba pare nga ciy xool tamit sa diggante ak sa borom. mais tamit dafa am lu ma dégg tamit am na ñu ne sa ñaw nii yombul de am na ñoo xam ne bu ñuy suñuy ñëw dañ koy waaj de. waaw loolu moom man lool dama yaakaar daf ma topp quoi gars yi gars yi gars yi xaw ma daal man xaw ma liggéey loolu mais jaaxal na ma daal. wax ji daal bëri na côté boofu. ah man loolu yem na ma gars yi fu fu ma tourné ñëw ma sanu sa ñaw dafa seer sa ñaw dafa ah, man xaw ma sax loolu dafa ma bett de. mais yaa ngi nii toog wax ñu ndax yow loolu am na wala amul. waaw mais xam nga ça dépend si prix yi parfois nit day ñëw ku doon ñawloo par exemple huit mille. waaw. <laughs> sëriñ wuy ma may ñu jàmm yow xam nga ne fii ay ñaw yow kan moo la fi sañ a ay ay huit mille pour nga ñawal ko. waaw léegi par exemple soo ñëwee di ñawloo huit mille. waaw nga ñëw ne nga gis sa benn copain sa benn copain sol benn yere caw design rek laajoo ko ñaat la fay nga ñëw ba si moom. nga ñëw nga jënd tissu indi design ne la vingt cinq mille lay ñëwee par exemple wala mu ne la trente mille la ñëwee xam nga soo demee yow bu doon huit mille ngay fay. da ngay jël si tissu nag soo demee koo taseel nag da ngay ne ko caw dafa seer ñaw alors que yow yaa tàmmul fay ñaw bu cher loolu dong la te que tamit ki lay ñawal huit mille lim lay ñawal bokkul ak ki lay ñawal vingt cinq mille lim lay ñawal quoi. qualité waaw du ben barki alxuraan du benn. Mhm. waaye non du benn du benn du benn boo solee caw design sol bu huit mille di nga xam ne du benn. lan mooy lan mooy différence bi. ah mais na mon frère accessoire yi rek dèjà duñ benn fu ñuy jëndee bouton duñ fa jëndee bouton. ah mais am na am na am na tamit benn affaire bu ñu lay jëwee de am na ñoo xamante ni ne nañu da ngay dem di lonk ji di ñëw di lonkaat de. loolu am na ci teer yi de xaw ma naka yow ci ñoo waaw mais non non non lonk ji ñëw <laughs> di taara place bi. ñu naan yaa ko ñëw fekk da nga ñëw lonkaat. ñoom dañuy tuumaal ñu yaa dañuy tuumaal rek ñun dañ jàng métier les <laughs> luñ sol duñ ko solaat. ah bon non ah, hmm. waat. mais mais mais mais luñ créé duñ ko créé waat mais li ma la bëgg a laaj mooy yow est-ce que am nga benn euh, relation euh, ak yenn autorités yi ak encore artistes yeeg ndax am nga am nga am nga autorité yooyu ñëwal daal. waaw mais bien sûr ah ah bañ a jàmbaare xam nga jàmbaare en général luñ bëgg ku leen am ah mais jàmbaare dañoo bëri na. mais est-ce que yow am nga koy am nga ci jàmbaare kenn koy ñëwal wax dëgg yàlla mon frère. Hmm. ngi sant yàlla. am nga ay ndaanaan yooyu ñëwal ñëwal ay kilifa yu mag ci dëkk bi. ñun xam ci réew mi waaw ñu xam ci dëkk bi nga naan waay <laughs> foo ne ba pare ñu boole ci nag modeste ñëw toog sa place xam nga am taalibe waaw xam nga ku ne dañ xam nga nit bu ne ak ni nga mel man xam nga dama xaw a bëri kës-kës mm-hmm. mm-hmm. nag samay feeling xam nga gars yi mm-hmm. mooy loolu mais dañuy ñëw gérer am na ñoo xam dañuy ñëw di la ñëwloo di la conseiller di la dolli xaalis barki Serigne Touba. ci ñëw billaay wallaay ba pare jox la cër nag. billaa waay te nekk ay kilifa ci town bi ah billaa wallaay waaw ah bien sûr ku ci mel nii mënuma ko ñàkk tudd grand Guèye grand bu baax maa ngi koy nuyu au grand bu baax nit ku baax la da lay ñawloo di la may xaalis ba pare di la conseiller nit ku baax nit ku baax nit ku baax la am na quoi je veux bu côté artistes yi moom mooy loolu am am na ñoo ñëwal <laughs> yaa ngi aji mbagg de est-ce que am nga est-ce que est-ce que am nga artistes yooyu bien sûr ah Aziz ah, waykat yëpp laay ñëwal. ñu fay ñëw wala ñu tàq ñu xew. non mais ñu tàq ñi xam nga man moom man Baay Faal laa quoi man moom man moom xooluma ku tàq ku fay ku ma amal relation yu nice rek mun naa la liggéeyal quoi man noonu laay doxe ak nga sentir suma yëf am na ñoo xam ne tamit am na ñoo xam ne mënu ma leen ñëwal c'est parce que man xam nga style bu may door ak ñoom li ñuy solu du benn am na ñoo xam ne tamit du yàlla dëgg la bëgg am na ñoo xam ne àggagoo si ñoom am na ñoo xam ne romb nga leen affaire bi noonu lay demee quoi. xam nga waaw bu ñu naxante quoi dañuy waxante li nga xam ne mooy right waaw ñoo xam ne suñu déggee san tenue Thiaw Design man Sénégal amul ku may naan dama lay yëbul tenue te doo ko jël xanaa kay relation bi moo dul àggagum foofu mais man ma xool la ne la bëgg naa la indil tenue jëlal la mesure su ma ko indee nga sol ko waxuma sax senegal Sénégal dafa ndaw monde bi wax. ah bon barki su ma la xoolee ne la mun naa la defal lu rafet. ma jëlal la mesure su ma la ko andilee nga sol ko dañ jàng waay. ok dañ jàng dañ jàng waay mais mais mais mais li ma la. ñu ngi jàng nag ba léegi. ba léegi ñu ngi saa bu ñu xëyee dañuy jàng. xam du doy. du doy ah. say prix ñaw benn la wala wala am na am na ay niveau. non am na ay niveau nag wax dëgg yàlla. am na ay niveau kilo ceeb ak kilo du benn. <laughs> mais kon yow est ce que yow nekkul. <laughs> kilo la waaw ñoom ñaar jëm kilo la mais est ce que nekkul yow kon yow yow tey autorité yu mag yooyu ngay wax. ñoo tax tey sa niveau yéeg ba tey foo tourné ñu naan sa waay du du ñawal baa doolo du ñawal n'importe qui parce que ay affaire am dafa seer yow est-ce que du ci niveau boobu nga toll moo tax wàññiwoo sa loxo. waaw loolu nag bokk na ci quoi sincerement parler loolu bokk na ci mais ñun xam nga dañ nekk ay taalibe ba pare jaar fu metti xam tawoon bi li fi ne. Mhm. comprendre nga xam mhm. dëkk bi neexul dëkk bi dafa metti ñu xam ñoo xam ne ay boo yoo xam ne ay jàmbaar lañ te dañ bëgg sañse mhm. comprendre nga. Euh, moo tax. même booy ñëwal ay autorité bon parfois da ngay def ay prix yoo xam ne pour gentleman yi féexagul la am na ñoo xam ne ñoo daax a sañse autorité yi fuuf mais féexaguñu est-ce que yaa may dégg mm-hmm. kon boo ko buggee téye ci autorité yi ngay ñëwal rek xam nga da ngay xam nga da du sotti quoi mm-hmm. te xam nga temps bi ñu ñoo ko bokk man sama sama sama tenue da ngay gis nit boo xam ne da jaral lu ne pour mu jënd ko mais mënul quoi moo tax da nga koy defal xéewal dural ko prix Baye bi xam nga mooy loolu mu yaatu. Mm-hmm. waaw kon yow yaa ngi dox ci social la su ma la déggee. waaw c'est ça c'est ça métier. bien sûr ah waaw. <laughs> yaa ngi partagé gars yi. maa ngi man man rek partage la ah bien sûr. léegi suma la doon laaj ci métier mi lan moo la ci gën a neex ak lan moo la ci gën a métti. Euh, métier bi lu ma ci gën a neex ci gën a neex waaw man man xëy sangu ba set nii rek ñëw toog dagg di ñëw loolu rek moo si neex loolu rek neex na loolu dong la ma neex. mais lan lan moo la ci gën a métti loo xam ne sax boo ko xalaatee sa xol jeex wala nga toog di jooy. <laughs> si métier bi. loolu métier bi. comme ni lu la nit def wala loo xamante ne nii. waaw oh, man man man xam nga man soo ko defee léegi suba dama lay baal boo xam koy fàttee. ah mais c'est vrai xanaa nag wax dëgg yàlla nag xanaa nag sa jaar-jaar nag wax dëgg neex yàlla diggante deux mille dix neuf ak deux mille vingt quatre. mais mais am nga nag loola mosa a métti ci loola mos a métti ci métti mi. mos a métti ci métti bi. Euh, <laughs> jàpp ma ko. Ah c'est parce que xam nga pour man xam na moo tax métti wu ma euh, na moo tax métti wu ma hmm. jàng la quoi mënul yomb xam nga jàng la mënul yomb. mais des fois doo ñëwal client ba ba am yaakaar ci moom mu ñëw leb la wala mu bañ la fay. waaw yooyu day am sa diggante client yooyu day am mais man na xam nga gars yi parfois man niñ may fekkee xam nga nit ñi tamit parfois lay fekkee rek noonu lañ lay jàppee quoi hmm. man moom sincèrement parler soo ma xoolee dëgg xam ne man duma leble duma leble de mën nañ sekk teraanga nag quoi ci leneen ak yeneen ñu dem ba xam nga nga defal ma loo xam ne ëpp na ñëw wala ma defal la loo xam ne mais côté ñëw bi nii aw ma si caaxaan bàyyi dama ko jàng dama si sonn te ba tey maa ngi koy jàng wër na alxuraan. non damay maye bien sûr parfois ma ñëw ba mu rafet xam nga am koo xam ne seex nañ lu nice ma may ko ko. Mhm. waaw. mais mais mais leble moom bokkul ci samay mbir sax dama doon leble début bi mais après dama gis ne leble bi sax day yàq diggante. ak waaw day yàq day yàq sa diggante ak da ngay gis koo xam ne danga nga bëgg danga ko jox danga nga ko respecté mais da lay leb après ndeysaan day am kersa di ñëwaat xam nga te day bëgg de mais day am kersa pour ñëwaat liggéey pour ñëwaat nga ñëwal ko. léegi nag loolu nag lay def di di raam di raam di raam ba xam nga ba après diggante bi naax saay daal mhm. ndax ay quinze mille wala ay vingt mille du ko jar moo tax parfois am na ñoo xam ne billaay xoolal doo leen sax lebal dañuy jënd lu bari ñu leb la nga ne noo bàyyi est-ce que du bàyyi doo fi bàyyi benn rek ndax mooy gën quoi mhm. mooy gën mhm. boo ko naree leble man instant nii jamono ji du ma la nëbbu de maye moom gën a leble ah, même xaalis nii sax ngay ñëw di ma àbb nii dama lay xool lu ma la mën a may rek nga may ko bàyyi ko mu dem. non du ma la ko wax dama la ko may de dama la ci ah, aal quoi may naa la ko ci biir waaw. fekk may ko sa biir waaw ok noonu man noonu laay doxalee. mais mais mais mais mais Serigne ñu gis ne macha allah euh, catuwuñ la. parce que am na lu ma for ci weewu béy parce que dégg nañ ne am na yeneen am na yeneen ñaari place yoo xam ne après tabaski da ko nar a intégré léegi ci diggante deux mille dix neuf nga wax wala deux mille neuf ak léegi ci bi nga mokkalee ak ak ci bi nga ak ci bi nga beroog léegi dama la bëgg a laaj yow maanaam fan ngay jëlee munin gars yi dañ lay dafa am ñu lay financé wala dafa am branlo yoo xam ne dañ lay lebal wala bok la wala boog fan ngay jëlee munin bi quoi loolu la gars yi di laajte sëriñ. Euh, fu may jëlee munin bi. wala liggéey bi la ko may. waaw sant yàlla mais léegi man xool ma bu baax. waaw non dama lay laaj ndax liggéey bi moo la ko may wala dafa am ku nekk ci suuf. suuf non wala da nga tegge natt wala gars yi la. léegi man sama xoolee rek xam ne du ma leb leb de. amoo ñu lay financé. non man kenn du ma financé man dama. sa mooy na bopp ngay demee. waaw sama waaw te maa ngi sant nag. ah bon maa ngi sant bu baax. waaye dëkk bu métti bi gaan nga ne nga ne nga ne sa mooy nu bopp gaan moo lay de mais mais mais yow mais mais mais caméraman ce que yow yow yow jël nga jël nga place bi. ak yeneen ñaari place yi nga xamante ne après tabaski bi la ko nar a tijji tamit sa waay mi nañu wax fan lay jëlee monde bi tamit baal baal yi waaw mais liggéey rek jàmbaar liggéey rek barki alxuraan liggéey rek affaire day yomb non man dëgg laay wax liggéey bañ a yàq quoi a rek mais ko man dimbali dimbali ko te yàlla rek tax bul xool si bul xaar si moom dara gis nga gars yi jaawale dimbali ak yàq hmm. waaw fii ah. gis naa nag wax dëgg yàlla doguma la de mais gis naa benn boy boo xam ne yéen ñaar yéenay faral di ànd xam man maay daalu ndakaaru damay guddi gi eh, damay tas ak yow ak moom ngeen di dugg ci soirée yi di di génn ful moonin lu mat ay un million deux millions dañuy taxaw sur scène di ko joxe te moo koy joxe booy bi dama xamul nag waa ji ngay àndal moo la koy jox wala boog yow so ma ah sa waay leerlal ñu loolu waay. mais waa ji may àndal waajan. ah waajooju. ba pare ñun. man waajooju xam nga ko. man daal waa ji waxagoo tur bi mais leen man du ma wax tur bi mais a xam nga ki nga àndal ah, tamit waaw mais man ni ma àndal ñoo bëri grand mais am na ci koo xamante ne nii moom kooku sénégalais yëpp koo xam te yaa ngi ànd ak moom euh, kan la ñi may àndal sénégalais yi xam leen bëri na de mais am na ci benn booy boo ah yaa ko wax de man dama léegi tudd moom waaw mais Mario kooku na ñu ne moo <laughs> am na ñu ne moo lay jox rek. Ah, alhamdulilah ah, am na ñu wax loolu de. xam ñooñ dañoo juum de. Ah? ñooñ dañoo juum waaye. ah moom joxul la. Mario Mario c'est un ami ko xol laa a jàppee. ah <laughs> yaay Sadio film bi rek gars yi wax wax ñu nu mu fa demee rek gars suma gars la sama Mario moom sama waay la kooku wax ci moom damay kontaan mais nag wax dëgg yàlla man li may maye maa ko moom. <laughs> li waale naa loo maye yaa ko <laughs> barke Sëñ Tuubaa a ah, moom joxul la. non joxuma tous la may jox en fait Mario moom dafa xam teraanga. Mhm. nit nit ku baax la. xam mhm. su la fekkee ngay def teraanga da lay jàppale ci li mu man mii noonu laa mel su ma fekkee muy def teraanga dama koy jàppale ci li ma mën nitu la nit ku baax la. Mhm. barke Sëñ Tuubaa man xolam rek laa ko jàppee xamaluma ko dara Mario Mbaye. seen relation ban année euh, ay ay ay trois ans si ginnaaw. Ah. waaw. ay trois ans si ginnaaw la ma fekk benn restaurant Semax maa leen di nuyuwaale gars yi ñoom As euh, Cheikh gars yëpp maa leen di bëggewaale foofu grand Cheikh Jibi Semax Alioune Bass gars yi waaw maa leen di bëggee ñëpp ba bis mu fekk ma si restaurant bi nii xam mu taxaw quoi mu ne ma frère naka mu ma ne ko nice mu ne ma bàyyi da ngay cool rek ma ne ko Mario mbay laa wax de mhm. mu ne ma may bàyyi kaay jël barke Serigne Touba nit ku baax la. xol bee rafet. man xol laay jàppee ni man loolu waaye. billaay waaye man du ma sang kenn man lay Baay Faal. <laughs> ah man réew mi sëñ Touba rek laay sang. mais yow li yi séeréer du benn mais sénégalais yi ñu ci bari xamuñu ko. Ah. xam nga sénégalais yi ñu ci bëri xamuñu ko. ñu bëri xamuñu ko ah. man li ma xam ci moom loolu laa ko jàppee Mario mille 1200 laa ko jàppe 1200 waaw benn norvégienne. 1200 francs cent francs dafa ñëw fekk ma taxaw mu jëndal mu ne ma frère kaay jër reer ma jër Norvège pour 1200 loolu laa ko jàppee. loolu la ñuy àndee quoi. barke sëñ Touba xamaluma ko dara. Hmm. loolu mbaax loolu rek laa mun a wax ci moom. loolu moo jur seen relation. loolu moo andi suñu relation quoi mu waaw mu nekk nit ku baax xol bu rafet la loolu dong laa xam ci moom. Hmm. Hmm. waaw. loolu kese laa xam ci moom. moom dinaa la ko xamal. man li may maye. par exemple li gars ne dañ koy maye man ma koy maye maa ko moom kenn joxu ah, loo maye yaa ko. maa ko moom la demee. waaw kon kon waaw waaw kon kon kon gars yi wàññi leen wàññi leen coow li ak wàññi di wax ci deru nit lu leen leerul wala euh, loo leen xamul parce que euh, xale la wante xale bu baax la xale bu am jom la euh, mais xam naa ne ñu ngi ci fin temps bi ñu ngi ci cappaandaw li mu presque émission bi jeex na wante balaa ñuy tàggoo dafa am benn jëw bu rafet ndeysaan jëw boo xam dama koy dégg ci moom ñu ne ku bëgg ay waajuram la waaw ku kuy nemmeeku ay waajuram la kuy kuy jàppale ay waajuram la sa digganteeg say waajur. waaw sama digganteeg samay waajur ah mel ni kontaan naa waay <laughs> yaa baax parce que sama yaay sama papa soo leen damay kontaan. dama am ñaari ñaari ñaari ñaari pay ñaari ñaari waajur yu jàmbaare waay. Mhm. ñoo xam ne loo soo leen toppee rek ñaari waajur yu la yéene dañ lay yéene ba duñ la laaj. xam nga loolu dafa garaaw. loolu loolu nga ma neexee jaww boobu may dégg ci yow ñu ne ñu ne ñu ne ku ku yërëm ay waajuram la tey loo am rek sa ngërëmu waajur moo loxo may foo yegg tamit sa ngërëmu waajur moo la may sa relation ak sa waajur. sama sama relation ak sama waajur en fait man dañu baax man sama yaay sama papa dañoo baax quoi bay billaay dañu baax trop ba pare simple man sama yaay sonaluma si dara barki alxuraan. sam papa amul amul wave nga baal ma si publicité bi bu dee si am amul wave amul orange ma du la sonal barki alxuraan da nga koy woo dalay lay woo dama doon nem dama la ko doon nemmeeku na ko waamee ah, père mu nga wave foofu mu ne noo yor ma wave wala mu ne la téye ko barki Seydina Mouhamed même pas une semaine dañ déggante ma ne ko père euh, am nga wave mu ne ma non non ko tabaski bi léegi mu ñëw hmm? waaw sama yaay moom mooy loolu man sama yaay dama ko bëgg mun ñoom mënu ma wax ci ñoom dama siy def code <laughs> di job di leen jox <laughs> dama ciy def code di job di leen jox mais mais diggante waajur ak doom noonu la war a demee sax parce que tamit dégg naa ne yow ñoom jooyuñu dara daal waaw lu ñu lu ñu joxañ nga kub wax dëgg yàlla waaw mais mais ñi nga xamante ne nii tamit meluñ koog seen waajur yi lan nga leen di wax mais am na loo xam ne xam nga am na loo xam ne natu la Hmm. waaw <laughs> du ma oustaz nag de. nattu la par côté. <laughs> xam nga bàyyi yaay nu mu hmm. nga ngay ngay ngay job muy dox ngay jéem a nay nay loolu yooyu loolu nattu la. yow gis nga ci yokkute quoi. yow la andi àdduna mais mais loolu mooy yokkute. Hmm. barki kese mooy yokkute amul leneen frère. ndax gars dañuy naxee rek. fi job nii xoolal. respecté parents yi mhm. jaamu yàlla ci li nga mën mhm. non xoolal da ngay dem billaa wala soo demul rek yàlla neex neexul kenn ci dëkk bi ndeysaan soo demul rek yàlla neex ndeysaan mhm. ndeysaan waaw kontaan continuer euh, mu mel ni suñu temps jeex na euh, suñu heure jot na euh, tey ñu amoon caw xale bu baax macha allah moom laa leen doo wax sànq ba léegi instant bi nag dañ leen koy bàyyeel moom mu tàggatoo su paree ñu tàggatoo jox leen dig daje ba beneen yoon caw looy tàggoo waaw mais maa ngi kontaan ci yéen. Mhm. Dakar midi. Mhm. maa ngi kontaan ci yéen bu baax a baax a baax. waaw mais wàññil prix ñëw nag. waaw dinaa ko wàññi mais loolu ñu ngi ko jëm. mais affaire yi <laughs> wàññil prix yi. <laughs> non dinañ ko wàññi. dinañ ko wàññi dinañ ko wàññi coono gars ñëw leen ma wàññi ko. dinaa ko wàññi bu baax a baax incha allah mhm. sinon di tàggat di am contentement bu yaatu yaatu ci Dakar midi. Hmm? Euh, di ñaanal ñëpp di wax client yi gars yi dese na mën nag. li ma dese bëriwul xam nga instant korité bi tey la 17 ah. Hmm. le 17 bi di ñëw mooy korité bi hmm. une semaine moo ma dese ma tëj. waaw ma tëj ma tëj te mooy ñi nga xam ne xam naa leen quoi. waaw waaw dëgg yàlla non su ma tëjee tëj naa su jeexee rek jeex na. <laughs> su jeexee jeex na non su wax dëgg yàlla xam rek bu da lay andil ay coow. Hmm. te xam nga xam nga tamit ñun tam dañu war a def suñuy trois pièces. Mhm. dem julli ji. waaw waaw dañu war a def waa nag tuuti waa day dem julli moo ñu ko dig de nee na moom moo ñuy solal man ak yow moo moo ñu ko dig léegi joxe sa numéro téléphone parce que numéro téléphone bi moom force nga joxe ko parce que yow moom seq nañ loo xamante ne nii sa su la neexee boo yoree sans numéro joxe waaw waaw waaw xanaa kon ma bàyyi leen ak benn bi rek joxal yëpp numéro bu baax bi joxal yëpp <laughs> bu la ci bi bu la jot wala ci be joxal yëpp léegi faa ma jox leen 77 bi waaw 874 waaw 05 71 Thiaw Design boobu mooy sa numéro waaw mooy sama numéro ci woo jot ku ma woo jot ma bokkoo ci tëer yi nga xam du jël numéro buñ xamul waaw mais ça dépend <laughs> non booy dama waane rek booy booy waane ngi dégg nga ça dépend <laughs> xam nga toog ba dernier moment nga xam ne nii teelu ñoon di ñëw ñu ba fin soo leen jëlee plaignant la quoi da nga leen di bàyyi si biir rek yoraloo leen dara mais da nga leen di bàyyi si biir après fête yi xam nga nga bës leen bu jeex. kon daal ñoom nañuy a a rek. teel a ñëw. kon baax na kon baax na euh, sant ak ngërëm ñeel na la kontaan nañ ci yow wax dëgg yàlla yombalal nañ nga ñëw liggéey bi macha allah yal na la yàlla jàppale defal la jàmm euh, ñu fas ba yoon képp koo xamante ne nii nag soxla nga ci sa domaine bi nga nekk ak ci métier mu mun a doon saa boo ñu woowee bu soobee yàlla ak foo mun a nekk dinañ def déplacement dérangement cessé la dafa yow émission bu neex incha allah rabbi kontaan continuer jox leen dig daje ba beneen yoon ciao bye bye maa ngi dem ba beneen yoon ñibbi